aca combat ba dem na diggante ordinateur bu sali bu sali ak Mbaye Diop Palmarin waaw waaw ordinateur bu sali ak Mbaye Diop Palmarin waaw waaw eh, eh. Nous def remercier délégation monsieur le ministre le maire de la commune de Tchadjaï, en même temps groupe parlementaire de l'Assemblée nationale notre euh, représentant Adel Manga parce que nag c'est très normal ñii nga xam ne ñoo feebar. na de jàmm na tànk ba. waa di si génn waa di si génn Mbaye Diop. oh oh ordinateur ordinateur daan na Mbaye Diop bu Palmarin waaye nee dafa am doole.